nak euh, nay leer waaw euh, nay ñu xaar ko tuuti rek daanaka pour ñu mën ko taataan nga xam ne moo di suñu suñu suñ suñu micro. bu dee li nga xam ne tey jii nii moo di réaction. wa jàll baax a baax ah, ñu ngi lay waaw lay la wax nan ngeen fas préparé journée bu tey bi euh, ci euh, li nga xam ne moom ngeen di wooyee ngi leen di nuyu yéen ñëpp di siyaare mbokk yi di am kontaan rek ci mbooloo mi ñu teewee euh, wax dëgg yàlla ngeen ngeen taxaw taxawaay boo xam ne nii Sénégal yëpp ngeen ko defal ndax lu mel ni lii duñ ne ay ndaw taxaw di xeex injustice ñu ñëgul itam ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay patriote jóg di xeex injustice di ay citoyen yoo xam ne ni xam nañ seen droit xam seen devoir pour réew mi amee problème wala injustice taxaw ñu taxaw xeex di xeex démocratie démocratie bii ngeen di xeex nag yàgg ngeen koo xeex nekkul na tey rek ngeen commencé xeex démocratie ndax démocratie 1960 ba léegi mboolem kilifa diine yi fi nekkoon ak mag ñeeg ñi fi nekkoon ak ak ceddo yeeg ñëpp dañ doon xeex liberté liberté boobu ñu doon xeex nag moo indi Sénégal ba fii mu toll nii tey réew yu Afrique yu bëri am nañ ay jafe-jafe yu bëri am na coup d'état réew yu bëri am na ah, am na ay euh, euh, coup d'état wala ay guerre civile te yàlla musal na ci Sénégal te li ci yàlla musal Sénégal nag mooy xeex démocratie bi ngeen doon xeex démocratie ba tey tey ngeen gën a dëggalaat seen bopp ci xeex démocratie démocratie boobu nag moo tax ba tey ñu yegg si fii ci combat bii te tey démocratie boobu dañ doon xeex ànd ko Macky Sall président Macky Sall di xeex injustice ci jamonoy Ablaye Wade di xeex démocratie jamonoy Ablaye Wade Macky Sall ànd koog ñun kon nag bu dikkee tey mu bëgg ñoo tegaat injustice wala mu bëggoon ñu tegaat maanaam jëlaat ba bu yee suñu droit di ba bu yee suñu suñu démocratie dañuy taaw xeex ñii nga xam ne ni moo tax tey manifestation bii ñu woote ko fii tey ci place de l'Obélisque Sénégal yëpp génn muy lan xeex injustice ak détenu politique yi nga xam ne ni Macky Sall jël na leen en otage di leen teg di di di tëj leen ci kaso bi ñi mu rey leen te mu ray ray gi muy rey nag man moo ma ci gën a métti ndax léeg-léeg nga gis dañuy jël benn waaye tëj ko yóbbu ko kaso bi ñu ne rey ñu ne dee na te bi muy génn di ko jël këram dara jotu ko ñu jël ko yóbbu ko def ko garde à vue ray ko soit ñu jël doomi jaambur deful dara ñu kidnappé ko sans ñu jox ko jox ko convocation Fadilou Keita dañ ko jël fekk ko këram kidnappé ko yóbbu ko Pape Alé Niang jël ko tëj ci kaso bi te koo xam ne boo ko joxee convocation mu wuy si nga di ko jàpp mel ni ab agresseur Fadilou Keita biñ ko indi ci tribunal Korog dañ ko encabulé dañ koo muur encabul mel mel ni ab agresseur mel ni ab criminel lañ jàpp ci en tant que Fadilou Keita yaayam na fi ngoy Keita liggéey lu rëy ci senegal doon nit ku diñ jigéen ju mat ab jàmbaar di liggéey ci démocratie di liggéey ci eh, eh, ci ci liggéey ci eh, économie Sénégal nekk OFNAC nga jël doomam Fadilou Keita jël ko tëj ko paqueté ko yóbbu ko fii tir rëbës boole ko ak xale ay xale yu ndaw tëj ko chambre chambre 38 lañ ko yóbbu en tant que Fadilou Keita nga di ko humilier yóbbu ko chambre 38 tëj ko ci kaso bi boole ko ay xale yu ndaw te mënoon ko non non ñu liñ topp rek ay ay ay terroriste rek ay force nouvelle division force nouvelle rek seen seen seen yu caaxaan yi ñu nekk te loolu du indi jàmm ci réew am réew li ci indi jàmm mooy ñu fekk képp koo xam ne defuloo dara ñu bàyyi la nga am sa liberté koo xam ne def nga loo xam ne yoon yoon yoon topp na la ñu xool la la yoon war topp mais jël ay nit di jël seen dossier di ko chargé di leen accuser di leen tëj ci kase bi di leen paqueté loolu dañ koy déplorer te dañ koy xeex xeex bii ñuy xeex ak Macky nag xeexuñ pour Macky Sall dañuy xeex pour suñu démocratie ndax ñun Macky bu jaaroon fa war a jaar man damaa ànd ak ànd ak ñi bokkoon ay ay ñoom Sidi Lamine Niass ay ñoom Alioune ay ñoom euh, euh, Almeta Ala Diouf di xeex ba am am li ñu amoon na ko néew ci démocratie Macky Sall bi ndikkee dafa jël lépp sànni ci àll ba te loolu duñ ko duñ ko bàyyi muy jàll li ñu koy wax nag mooy lenn détenu politique yi mu jàll mu jàpp ñoo moom dinañ xeex ak moom dinañ xeex ak moom bu jëlee ay manifestation manifestation spontanément ci régions yi ci département yi danañ xeex ak moom ba mu bàyyi doomi jaamur yi ñenn ñi rey na leen ñenn mu ngi leen ci kaso bi te loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy tàllal di ci wax kilifa diine yëpp ñoo ak ngi gis Macky lii muy def ñu ngi koy gis lépp li Macky Sall def ci injustice ak tëj doomi jaamur yi ci kaso bi kilifa diine yëpp a ngi ciy teg bët. lan mooy xalaat ci euh, bu ñuy woowee jàmm ak troisième mandat ñi xam ne sëriñ yi pour mën a waxtaan ak ñoom par rapport ak troisième candidature bi xam ñooñu xamuñ kan mooy Macky Sall képp ku taw ci Macky Sall di ko woo ci naan jàmm gën troisième mandat yow xamuloo Macky Sall seen dox boobu ñu dox amul njariñ man maa ko wax lu tax ma ne amul njariñ kilifa diine yi dañuy wax ak Macky Sall Macky Sall du leen dégg kon nag bu ñu demee ci kilifa diine yi nan ay jàmm gën troisième mandat dañuy dox troisième mandat Macky Sall kuy xeex ak moom ci troisième mandat da ngay moom da ngay jaamaarloog moom ngeen xeex maanaam amul amul ay amul ay négocier troisième mandat dañ ko doon négocier troisième troisième mandat dañ ko doon ma ma ma ma ma troisième mandat troisième mandat troisième mandat troisième mandat dañ doon négocier may la ma tudd waay troisième mandat dañ doon négocier dañ doon négocier ak Macky Sall ci ay dem naan ko seriñ bi jàpp ceeg kilifa gi jàpp ci troisième mandat duñ xeex ak moom Dakar kese duñ xeex ak moom troisième mandat ci Dakar dañuy xeex ak moom ci département yi xeex ak moom ci région yi bu jaree maa ay bakkan deux cent personnes dee par bés deux cent personnes mort par jour moo ñu gënal Macky Sall am troisième mandat troisième mandat dañ ko doon négocier ay jàmm ay jàmm ak yooyu dañ ko sequt ak Macky Sall ci troisième mandat dañ koy tegal ay bakkan deux cent personnes mort par jour corbillard yi taxaw ambulance yi taxaw ñu ñu ñuy escadron yi taxaw ñu ubbi yi muy ñu gënal Macky Sall bakkan yi lañ ci teg deux cent personnes mort par bis danañ ci xeex ak yow dem ci benn sëriñ duñ dem benn ci kilifa naan la may ñu ay jàmmagal troisième mandat troisième manda dañ ci dul ñaan njëkk ñaanuñ ci ay ndimbal troisième mandat suñ bakkan yi lañ lay jaay deux cent personnes mort par bis par raison par raison danañ xeex ak yow Macky Sall troisième mandat waroo koo laaj waroo am jëmi jàkkaarloog Sénégalais yi daw dem ba Amérique di jàkkaarloog président John John Biden mu lay laaj nan la troisième mandat nga naan ko troisième mandat ci man la des xanaa ko yow lañ laa may réew mi suñ constitution bi yaa ko moom wala yow yaa moom suñ constitution bi ba taxaw jàkkaarloog Dior Baye doon naan ko sama troisième mandat ci man la des waxoo lu am waxoo loolu am Macky Sall troisième mandat desut ci yow desut ci yow ñu ngi lay xaar ba nga wax ko bés boo waxee troisième mandat da nga xam ci yow la des wala desut ci yow duñ dem ci genn kilifa duñ dem benn benn xalifa di ko ñaan dañuy jàkkaarloo yow suñ bakkan ñu jaay la ko boo naree la troisième mandat da nga jaar ci deux cent personnes a xamal da nga ko yemale ak laax ngénte laax ngénte da nga ko yemale ak troisième mandat doo ko mos doo mos troisième mandat wasalaamaaleykum